effectivement maa ngi woon ci avion bi jëmoon Afrique du Sud sur l' invitation de président Samsung Afrique àndoon ak délégation Samsung bu Sénégal avion bi nag euh, bi mu décollé environ ay dix minutes yooyu noonu ci lañ dégg benn bruit daal bu am doole ci côté droite bi ci noonu ci la pilote bi commencé def ay communiqué comme ak dafa am problème technique ci noonu ci la commencé def le tout pour retourner avion bi pour indiwaat ko aéroport Diass waaw actuellement daal ñu ngi toog nii di leen déglu ba xam daal nan lañ maa def ba mën a eggalee suñu voyage ci même jour incha allah. mbooloo mi moom euh, je sais que tiitoon nañ loolu wax dëgg yàlla ndax ku ne xam na ni moom problème ci avion moom xam nga kenn mënu ko expliquer quoi mais terewul garder nañu suñu cent fois ba avion bi atterrir en plus gis nañ rapidement sapeurs yi ñëw nañ en plus ñu évacuer ñu ci avion bi comme ça ñoom ñu continuer def seen liggéey quoi.